daan lii lii de warna li de warna ekibu équipe bu mag bi ci réew mi lol warna fedelen ma fedelen ma ekibu mag mi lol warna le 20 septembre booleek es warda Dakar mu jur jaraaf ca moome at dafa doublé coupe championnat vainqueur coupe OIT nu sëgg Jeanne d'Arc de Dakar door ko 3-1 ñaari bi yu Matar ña ak bu Petit Jémé champion taxaw ni final ak Almadi door ko 3-1 séddale ma séddale ma équipe bu mag bi ci réew mi jaraaf loolu wër naa cent quatorze cent quinze mu dellu double coupe championnat long dégagement de Grandly déviation de Matar Sow changement pied faal à la treizième minute la jaraaf tàggoog ñoom lii de leer naa lii de wóor naa orbe mu mag baa ngi ci kaw kookoy Grandly international rëkkal na la yi réewi réew international bi rëkkal na la Tunisie international bi rëkkal na la Abidjan rëkkal na la Ndakaaru jal joob defisu jaraaf yiw yaru yete la woote defisu jaraaf football handball basketball jaraaf dañuy volleyball ak natation athlétisme cyclisme ngi ci bir boxe ba ngi ci bir ak culture devisu jaraf yiw yaru yetala sama waji, biradli bis bi ay li de lerna bayu boker, li de lerna sportif bu mag bi ci rew biran lolou lerna kuy sa ali lay sa sunu waji sunu chef de quartier baa ngi nii taxaw ñu duppee la stade bi taxaw jamil xam nga li nga def ya rafet xalaat sunu maire bi ñu sunu stade bi nga nomé ko sunu stade bi li ken amul loo yegtu yokko xaw kau loo wute jamil mbalun la waxul patriote bu mag bi sunu mer modi jabil jamil saja nga ca ngalaama ji waay yaa honoré tey daba daba akan neexoon képp ko am goro mu mel ni daba mo honoré tey ji daba sunu waji daba sama waji, tey ya honoré biraat fii ci Sénégal nu duppe ko stade bu mag bi gàcce ngaalaama ji way ko koy daba lo fekke fajj ko xawma lo wute wute ma ngi nuyu ku nek sa tour ak sa sante di nuyu sama mbokk maire yu fi nek ño xamne ño fi teewal ño ño ño fekke fet bi mu don fet bu maga mag di geureum conseil municipal parcelle Assainies bu tax li am di geureum tamit ñepp ñoo xamné ay invité lañu té ma bañ ma faté seen tour di gërëm tamit la commission sportive mo xamné du début à la fin ils ont tout fait ils sont sacrifiés pour que cette fête là soit une fête merveilleuse may gërëm tamit le parrain tay ji so gisé tay ji ma gë ma ñu tuddé ko stade bi je pense que du man sama mérite mais conseil municipal bi mo décidé ni tourbi bi moom parce que dafa œuvrer lu beure ci la Sénie. ganao le fait que mu sportif mu sportif de la commune mu sportif pour l'équipe nationale du Sénégal avec qui il a traversé toutes les épreuves mu donne référence au niveau de cette commune mu a à deux reprises conseil municipal donc koku tey Moudon président des délégués quartiers de la commune des Parcelles Sénie, de son vivant je dis de son vivant nit ki nak su fekk dañ koy duggo de njukal mu lu deful en certain niveau dañ ko def instant yo xamne mu ngi dund daf ko mérité daf ko mérité si yu kon uniquement pour cette commune de la au-delà même man sama daf doxal vraiment sans pour autant qu'il attend quoi que ce soit au retour soo gisee tamit ma jël tournoi bi ma dédié ko la petite catégorie dara taxul parce que dafa am yoo xam dañ ko bëgg inculquer xare yi mooy dañu constater à chaque fois qu'il y a un tournoi ou bien quoi que ce soit loo xam ne mag yi lañ ko jox lu ñuy faral di gis ay violence kese ma xalaat ni am na loo xam ne war nañ ko jàngal xale mooy ñu xam ne spoor jàmm rekk la xamante moo ci war nekk foo la reetaan lu ci des yépp dafa am jubluwaay lii nag sport bu ñu dënk xale yi tey jii mooy uniquement xale yoo xam ne dañu bëgg a boole sport ak éducation ak jàng tournoi bi xale yu ko bokk yu ci bokk yépp dafa ne ak xale yoo xam ne ñu ngi école dañuy participer

terrain bi yépp la ñuy transformé terrain bi dafay terrain boo xam ne ñu ngi defar benn dëkkuwaay ci biir mu am ay logement d'hébergement pour les joueurs ñu xalaat tamit def benn restaurant au niveau de stade ñu def tamit benn gymnase ci biir stade bi donc am na lu bëri lu ñu bëgg dugal ci stade bi loolu yëpp jëmmal ko joxe ko mu respecté ay normes yoo xam ne gis naa ni am na stade yu bëri yu fi nekk yu ko jiitu incha allah da leen di raw ci fànn yooyu yëpp lii nag liggéey conseil municipal bu Parcelles Assainies la man dama len djité rek mais lepp lu rafet lu ci baax rek ñom la di gërëm ñep di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah mais yeg yeg bima ma am dafa nek yeg yeg bo xamné daf ma dépasser par d'abord ñi ngi nuyu le premier ministre du nuyu ministre des sports du nuyu le sous-préfet du nuyu monsieur le maire mon mi waral bi nuyu les anciens gloire Du nuyu sama dëkkandoo yi du nuyu sama njabot du nuyu wa Parcelles Assainies du nuyu anciens yi unité 24 ndax den ma bëgg du nuyu mbokk monsieur le sous-préfet tay bes la bo xamné tout un sportif vivant et ça c'est la première fois que vous ko kooku sant De la dafa am un def bu initiative conseil municipal la dem conseil municipal les conseillers voté sur 55 voix 52 deux

ndax am estime ci yow def nga loo amul benn maire bu ko si Sénégal musul am donc yàlla nag mooy faye mënuñu la fay mais yàlla mi am fay yàlla na la yàlla fay wasalaam. ñëwaat ci kàddu yi ngay dénk dama leen violence bi am léegi si sport musul am si sport ñun ba football mën nañ football ba pare ñaari équipe histoire du am dara mais maintenant bu football ñepp dañuy daw daw nous génn bala match bétas té lu ndax lolu musul violence bi ci terrain bi monsieur le sous-préfet la violence bi terrain après les matchs vraiment kenn rafetlu ko dañu bëgg nga dimbale nu si te xam nañ na sa arñ sa gëdd sa mandute man nga nu si dimbale ñu ngi la koy ñaan wasalaam